salle de délibération bi sama conseiller ba don buñuy tok dañ don bindé ci sen oom bo démé def nañ fa équipement def extension tabax ben état civil bi nga xamni ni nañ ko askan gi lolu ci mairie annexe la bo démé ci walu éclairage tank maa ngi koy tuddu amul ben tali bu am goudron bu nek ci Nord ta taaluñu ko lepp lañu reprendre lepp lañu moderniser luñu ñu ci éclairage moy quartier yi ñu dugg ci quartier yi gën ko léral té lolu aussi programme mairie la ren ren la wax dinañu dem ci quartier quartier yi gën ko leeral bu ñu demee si wàllu santé eh, amon nañu ñett poste de santé yu nga xamné dañoo soxé won muy poste de santé kër Issa Poñen mais également logement ISP wu Kawsara bi tay kër Issa pare na def nañ fa 11 millions Poñen pare na def nañ fa 15 millions donc ICP Kawsara mo nekk en finition def dañ fay def 7 millions mais également ci santé bi du xamal que ni ren bëgg nañu participer lo junni nit ci couvert quartier yi pour mënu ñu tanal téméri nit par poste de santé mu nekkal ñu junni mais mais également médicaments dañ leen di poste de santé à hauteur de 500 000 personnel bi aussi dañ leen di jàppale éducation dañuy joxé chaque année fourniture scolaire du réhabilité classe parce que bañ ñëwé ba légui defar nañu lu mot juroom ñetti classe dugal ci fukk million mais également euh, japp nañu ren ay blocs sanitaires yu nga xamni bañ ko visiter ci école yi dañoo dafa nekk ci anam yu doy war mu nekk fukk école ak ñaar yu amul bloc sanitaire ñu xayma ko mu nekk fanweeri million ak juróom benn mairie bi sur fonds propre fukk millions yi ak juróom benn lay dugal am nañu partenaire bu ànd ak ñun pour dugal ci ñaar fukk millions yi pour ñu eggale bloc sanitaire boo demee si wàllu euh, aménagement dëkk bi boo xoolee xar kanam bi changé na parce que boo jëlee route nationale premier rond point ngent ba premier pont fu ñu toll stabiliser nañu sable bi wax naa la ambition bu ñu am mooy premier pont ba deuxième pont ñu pawe mais également Zawiya Ndiawoune defar nañ ko gën a taaral ko espace vert ay il public. yoy aussi yu am solo la mais y démé aussi si même secteur économique commune bi 27 magasins def ci alal suñu mais bu centre commercial bi nga marché central té ñu ci mu euh, milliard tay état bi partenaire l'ancienne entreprise bu ko doon pour mu donc ça sera un centre commercial commercial bi nga xamni du am du am mun na ni amul fenn Thiès Nord lay am te dinañ ci dina nek lu mot 1 milliard dinañ ko def donc bo xolé dal ah, tay wuyu si bi won na ni population bi lu ñuy liggéey sofu len mais également won nañu aussi que ni am na lu ñu def contane nañ ci am lu nga xamni aussi war nañ ko gëna gor gor te lolu moy suñu priorité. ndam man nga man nañu am chiffre manam ci banam ci ñaari at ak genn wal paris bi nga yëpp ñaata la bi nga injecter ci développement wu commune nord bi. bo xolé wessu nañu 400 millions.

mais si wàllu secteur sociaux yi dañ cee def jéego yu am solo waaw. monsieur le maire ci wàllu bilan ci wàllu inscription yi ci biir ci liste électorale yi ak tamit dem jëli carte yi li mel ban bilan ngay tuddee. waaw euh, bilan bi si wàllu inscription bi je crois que am euh, am nañ ci satisfaction parce que euh, taux bi bu ñu bu ñu maanaam nombre inscrits bi am solo dépassé na sax lu fi néwon parce que 48000 la ñu amoon weesu nañu 48000 000. mais problème bi moy bindu amna mais jëli sa carte aussi benen beneen mbir la donc bu popula bu état bi né bu mu nek du bàqu né bind naa juróom-benn téem juroom ben benn million doom aadama na wax né juroom ben million doom aadama yor nañu seen carte lolu am solo parce que tay jafé jafé la si jëli sa carte ta état bi mo am responsabilité pour droit boobu nga xam ne citoyen am na ko pour mu yore kartam dem voté mu garantir ko te garanti boobu nag moom moo des mu gën a gën a wut ay pexe ba yombal nit yi ñu jëli seen carte. dafa mel ni tey da ngay woon gars yi ne yaa moom zone nord tey ndax mobilisation. waaw non waaw xam nga euh, Thiès nord moom bon yàgg na nag am na ñu fi doon nekk du du doxantu rek du ñu tànkal mais boobu temps rek boobu ñun ñu ngi woon tekki rek parce que xam nañu ni. sa borom bu jógee rek mbir yi leer parce que nag ñaari mbir moo tax Thiès Nord mënuñu ko xëccoo kenn benn bi mooy lu fi Idriss Seck def Thiès waa yi yi nga xam ne ñoo nekk cees Nord gis ci seen bët boulevard bi wax naa ko ZAC bi wax naa ko tey c'est une nouvelle ville bu nekk ZAC bi nit yi xamuñu boo demee woon coonax avant avant sànc Idriss Seck yi kër yi juróom-ñetti junni la doon jar léegi kër yi ñu ngi ci ñeenti million juróomi millions. donc da ngeen ko valoriser. donc valoriser na Thiès am ay infrastructures taral liggey bob ties way gis ko donc ties way d'abord fonkon fonkoon nañu Idrissa ci liggey bu mu len def maire Lamine Diallo ñew aussi gën ko peinture rafetal ko ñop kontaan donc kon ciow li jeex. na si le man na tirer lolu def ko ci bilan suba. wa non xam nga man duma bëgg sax tontu xam nga li ñuy wax euh, man luma len di wax tour ci mbirum si la suba day def audience publique am ñun nekkuñu fi du bind du xayma du du rêver dañ ñoo fal juróomi at ñu pa ñu war a pare tey def nañu ñaari at ak genn wàll wax bi dafa doy boo waxee ba ñaari at ak genn wàll jot da ngay wax ceesuwaay lii laa def na wax pot de bi maa ko tabax maa ko def wax bi dafa doy bëri ay amna naa gis-gis Thiès dinaa ko lolu amul solo dina dina dinaa def nga ñaari at ak genn wal wonal ni li la def ci wal éclairage dama ni euh, nañu dimbalé sergi si jamono yi jatara dañu mayon ñaari benn tasseuse ñaari benn tasseuse yooyu moom ba mu ñëwé mu sàggane ko ñun ño top di wax ba mu réparer wat ñaari benn ñaari benn yi ba légui dawagul pour tonni mbalit dañ koy ñaan mu ñu comme moom tële na pour ñaari benn tasas yooyu dugg Cees pour jël mbalit nañu jox man mi nga xam ne maa yore marché central nga xam ne production mbalit dafa def na ma jox benn man dinaa ci def carburant tonni samay mbalit tonni mbalit yu nekk Cees noor yëpp yeneen mu jox beneen bi Aliou Sow mi nga xam ne gare routière la yore aussi production mbalit bi moo gën ñu ni ko yow yaa ko yor ñàkk ñàkk mënam mu jël ga ñaari benn tasseuse de peinture ko gaare ko bëgg a bëgg see euh, bëgg see baax liggéey moo tax benn tasse yi jóg nañ ñu ko jox comme moom tële na ba mu ko réparé léegi mot na ñaari at ñaari weer dawul nañ ñu ko jox ñun ñu defar ah,